bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokk yi ginnaaw sant borom subhanahu wa taala ñu ngi koy sëlmal si yonentam tedd bi alayhi salaatu wasalaam di ko ñaanal ñu képp moom ak saxaabaam yi ak képp koo xam ne jëme yoon woowu ñu nekkoon ba keroog yoon tamit taxaw mbokk yi ñun ñëpp xam nañ ne mooy si école lañu nekk liñ fi indi mooy ngir ñu jàng yóbbee suñu kër wala boog ñu yóbbu suñu kër ay résultats yoo xam ne résultats yu yu baax la léegi des fois dañuy soxla comme genre yu mel ni ñu woo suñu benn oustaz bu ñëwee moom mu defal ñu benn genre conférence ñu koy wax thème de formation pour mbokk yi léegi après ñu déggee si ay jàng ay jàngat yoo xam ne jot nañ mu nekk loo xam ne dañuy dañuy njëriñ léegi xam naa duñ gudd dañuy jox oustaz kàddu bi. moom mu tàmbali li nga xam ne war na ko def ñu fexee déglu concentré bu baax
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجد بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi am mbégte ak kontaante dajeek yéen pour fàttalante ak yéen tomb bi di as-sidqu mooy dëggu warada sidqu fi alqur'ani alkarim fi iddati ayat فيها الحث على الصدق وكونه ثمرة الإخلاص والتقوى baat bii di baatu as-sidq te mooy dëggu rot na ci alquraanul karim ci ay aaya yu bare bare bare bare bare boo koy xaaj mën nga ko xaaj ñett yii dañuy soññ nit ñi pour ñu dëggu yenn nii day wane ne dëggu mooy meññeefu sellal yeneen ñi di soññe ci dëggu mooy indi ragal yàlla mbokk yi baat bi di baatu dëgg sunu borom subhanahu wa taala def ceewoo ñi gëm yàlla ci baatu ngëm la leen yàlla woo ci baatu yaa ayyuha alladina amanu ci suratu tawba aya 119 borom bi ne leen ragal leen yàlla te ànd ak ñi dëggu yaa ayyuha alladina amanu taqullah wa kunu ma asadiqin ragal leen yàlla te ànd ak ñi dëggu kon lu muy tekki soo ragalee yàlla te àndoog ñi dëggu doo dem ku ragal yàlla ñi dëggu dong la war a àndal waaye laaj bi gën a rëy ci ñun ñu war ko laaj suñu bopp mooy mbokk yi nun nan la ñuy def ba dëggu loolu kenn ku nekk war nga ko laaj sa bopp nan lay def ba dëggu léeg-léeg ci liggéey bi di liggéey yi lislaam wala ci nekk bu ñu nekk ànd bi ñuy ànd jëflante bi ñuy jëflante da nga ciy gis koo xam ne du tardé jàkk 24 heures sur 24 da nga gis koo xam ne ku wóor la loo ko dénk mu garde ko waaye da ngay fekk du dëggu bu la joxee rendez-vous da lay faussé su waxee nga vérifier loolu mu wax amul wala su ne dinaa ko def du ko def te loolu yëpp ay manqué manqué la yoo xam ne ab jullit war na ko xeex mu denc ci boppam dëggu mooy borom bi subhanahu wa taala bi mu waxee gaa yooyu na ngeen dëggu te ànd ak ñi gëm borom xam-xam bi ñuy fir aaya bu dañ ne ay kunu ma sadiqin na ngeen ànd ak ñi dëggu fi aqwalihim seeni wax wa afaalihim seeni jëf wa ahwaalihim ak seeni mbir kon ndeke dëggu mënta nekk dudul waa ji ci ay waxam yëpp mu dëggu ci waaye ci ay jëfam yëpp mu dëggu ci waaye ci ay xew xewam yëpp mu dëggu ci dëggu ci sa bopp say wax iza qulta naam fi daynin fa atimmahu fa inna naam daynun alal hurri waajib soo nee waaw waaw la soo nee déet déet la dëggu ci seeni wax ak seeni jëf ak seen melokaan seen mbir seen melo yépp na nekk dëgg même melokaan yi sax dañ ciy tricher te nit warul tricher wax yi dañ ciy tricher jëf yi dañ ciy tricher maa saadiqina fi fi aqwalihim wa afaalihim wa ahwalihim alladina aqwaluhum sidq ñi nga xam ne seeni wax dafa dëgg wa amalihim seeni jëf wa ahwalihim ne laa takunu illa sadiqan xaaliyan min alkasali walfutur nit ki warul nekk koo xam da nga war a set wicc pour nga nekk ku dëggu foog nga set ci yenn tayal tayal yi tayal day yóbbu nit du dëggu place sàngam heure sàngam lañ fa am rendez-vous nga tayal a dem lan la la yóbbu nga tardé waxtu bi ci lan la yóbbu yow dëgguwuloo kon foog nga set ci tayal wal futur ak yenn sofantal yenn liggéey bi sofantal ko yenn programme yi yenn wax yi yenn jëf yi gis nga ñàkk dëggu day dem bay tas ay sëy day dem bay tas ay société day dem bay tas kër imagineel jabar ju dëggu borom kër gi dëgguwul ina imaginel ñoom ñaar ñu dëggu seeni doom dëgguwuñ wala imaginel doom yi dëggu ñoom dëgguwuñu dëgg moo yor àdduna saalima min al maqasidi sayyi'a nit na seet wicc ci nattukaay yu ñaaw yi lépp loo xam ne day ñaawal nit fexeel ba bu mu nekk ci sa pas-pas bu mu nekk ci sa jikku mu massila ala al ixlaas wa niya saaliha fexeel ba nga représenté sell ak yéene bu set soo sellee sa yéene bu setee rek nga dëggu kon pour nga set pour nga sell pour nga dëggu da ngay fexe ba dàq fexe ba dindi sa bopp ni sa yaram bi di tilimee nga yëg ne da ngaa tilim kenn ku nekk ci ñun fi toog yenn saa da ngay xool sa nga xam ne man damaa tilim su boobaa day laaj nga dem dugg ci duus bi mu laaj nga bomb ba set génn mu leer na ne sangu nga tey ah noonu lay laajee sa jikko ji sa comportement nga sangu ko moom tamit ba mu set lépp loo xam ne ay jikko la luy tax doo dëggu nga jële ko ci sa bopp nga fexe ba mucc ci bépp jubluwaay boo xam ne maqasid as-sayyi'a lépp loo xam ne luy ñaaw la wala lu lay ñaawal wala lu lay yàqal ñàkk dëglu gis nga ñàkk dëggu day dem bala yàqal sax sa jaamu yàlla yi parce que sa ñàkk dëggu yàgg yàlla mooy da ngay tardé waxtu yi ci jàkka ji wala julli ji doo julli ci wala jàng sa asgaar yi doo ko def ba wala jàng alxuraan doo ko def parce que dëgguwuloo da ngay fexe ba nga représenté loolu ñu naan sellal al ixlaas waaye nga am yéene bu set yéene bu rafet ñaareelu aaya sunu borom mu ngi ko wax ci suratu ahzab aaya 24 li yajziya allahu saadiqina bi sidqihim am na bis boo xam ne yàlla dina leen a jaam ñi ñan la yàlla di fay ñi dëggu woon ay bi sababi sidqihim ci sabab seen dëgg bu ñu dëgg woon fi aqwalihim wa ahwalihim wa muamalatihim ma allah ñi yàlla dina leen dajale tey di leen fay lu tax dañoo dëgg woon ci seeni wax dëggu ci seeni jëf waaye jëflante guñ doon jëflante yàlla sax yàlla dafa fekk ne ñoom dañoo dëgg ci xisasul anbiya di ngeen fa fekk yonent yi li tax yàlla fay leen mooy dañoo dëggu di nga jàng ay xissa yu bare bari nit kooku li tax yàlla defal ko lim ko lim ko defal parce que dafa dëggu jàng nañ ci suratu maida aya 119 borom bu ne hada yawmun yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatin tajri min tahtiha al anhaaru xaalidina fiha abad ay anna sidquhum fi dunya yanfa'uhum yawma alqiyama borom bi nee na jalla jalaaluhu tey fii ci àllaaxira bis la boo xam ne dana jëriñ ñi dëggu woon seen dëggu ñi nga xam ne dañoo dëggu woon dëggu googu ñu dëggu woon tey dana nekk jour bu leen di jëriñ ndax aljanna la leen yàlla fay mu ne aaya bi tafsir bi mooy ña dëggu woon ci àdduna dana leen jëriñ tey yowmal qiyaam seen dëggu googu wa anna al abd laa yanfa'uhu yowma alqiyaama wala yunjihi min azabihi illa sidq jaam bu gëm yàlla ab jullit yowmal qiyaam dara du ko fa jëriñ lu dul dëgg gu mu dëggu dëgg googu nga dëgg woon moo tax sa diine baax moo tax sa julli baax moo tax sa koor baax moo tax sa aj baax moo tax mboolem jaamu yàlla yi nga doon def dëggu gi nga dëgg woon moo ko baaxal looloo tax tey yowmal xiyaam li njëkk li la fiy jëriñ mooy sa dëggu quatrième aaya suratu yunus aaya 2 yàlla mu ne wa bashiri allazina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim ay imanan sadiqan bi anna lahum jaza mawfur wa sawab madxuur inda rabbihim bima qaddamuuhu wa aslafuuhu min al amali saliha alsadiqa sunu borom ne ci suratu yunus yow muhammad alayhi salatu wasalaam bégalal gaa yu gëmoon yàlla wa bassiri allazina amanu bégalal ñi gëmoon yàlla ne ëllëg fii tey yowmal qiyaam ci seen boroom yàlla dina leen fay ndeke ki dëggu amul kenn ku koy fay ci àdduna ku dul suñu borom waaye ndeke mbokk yi xéewal gu réy la yow nga doon jaamu borom boo xam ne yowmal qiyaam daf lay fay mu ne dëgg goo xam ne imaanan ngëm goo xam ne mu ne ñooñu boo gisee yàlla di leen fay dañoo amoon ngëm goo xam ne ngëm gi dafa dëgg moo tax yàlla mu ne wa basiri lazina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim moo tax mu ne imaanan saadiqan ngëm gu dëggu la ñu am ngëm gi dafa dëggu kon nit dina am ngëm gu dëgguwul mooy da nga gëmantu ndeke sax balaa yàlla di la fay ngëm gi nekk ci yow dëgg jaamu gi ngay jaamu yàlla mu nekk ci yow dëgg su nekkul dëgg da ngay perte moom ngeen dégg yàlla mu ne wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansour pourtant dañ naan ahlul kitaab yi gëm nañu yàlla wala parce que am nañu téere am nañu yonent la moo tax yàlla dégager seen ngëm parce que la ñu war a gëm mu dëgg moom lañ gëmut kon ci ñun ndeke même ngëm gi yàlla subhaanahu wa taala bu dee lan la fay imaanan sadiq lan la la yàlla fay mu ne bi anna lahum jazaa mafuur fay gu mat sëkk waaye fay goo xam ne yàlla subhaanahu wa taala daf la koy fay bi ma qaddamuuhu wa aslafuuhu min al amali saalihat ngëm gi daf leen a jural ngëm gi ba mu dëggoo daf leen a jural ñuy def amalu saalih dañuy fanaane guddi di julli di jàng alquran foo leen fekk seen làmm yi mu ngi tooy ci tudd yàlla lépp lu ñuy liggéey yàlla moo lañ ciy jiital juróomeelu aaya ci suratu zumar aaya 33 borom bi nee na wallazi jaa bi sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun xoolal xataa yonente alayhi salaatu wasalaam wallazi jaa bi sidqi ki indi mbir mu dëggu mi mooy yonent yàlla Muhammad lan la indi muy dëgg muy islaam ba pare wa saddaqa bihi moom mu indi ko ba pare dëggal ko yenn saa yi nit indi information bu mu gëmut wala yenn saa yi nit wax lu mu gëmut wala yenn saa yi nit def lu mu gëmut wala yenn saa yi nit dem fu mu gëmut wala yenn saa yi sax nit bëggantu kenn koo xam ne da koo bëggantu mais bëggu ko al moo ko ci dugal mooy ay intérêt yoo xam ne xam na ne bon su ma duggee fii dugg fii def ay calcul su ma defee lii lii la su ma defee lii lii la su ma defee lii lii la fu muy teere ji mooy bu échecgee ñëpp feeñ lépp feeñ ñu xam ne kii da doon tricher loolu moo tax hadis bi gën a doy waar muy ñett ñi dugg safara lan moo leen fa dugal mooy ñàkk dëggu pourtant li ñu doon def mbokk yi ci ñun ñu toog fii kan moo ko mën kenn ki dafa jihaat ba dee kenn ki dafa jàng alxuraan ba dee keneen ki ku baax la woon ku daan lebale alalam fu mu dem fekk nit ñi amuñu lu ñu fay mu bàyyee leen ko waaye bi ñu dee ñoom ñett ñëpp kenn ku nekk bi nga taxawee kanam yàlla mu lay àtt bi la yàlla ne waaye loo doon def ci àdduna ki doon jihaat mu njëkk mu ne man li ma rey ci ay yéeféer nangami nangami at jihaat naa ko dëkk bu ma dugg du ma fa bàyyi ab yéeféer ñëpp laay rey yàlla mu ne loolu ci lan nga ko doon def mu ne ci jihaad yàlla mu ne yow yaa mën a fenn yow nga doon xeex pour ñu ne jàmbaar nga gis nga da nga doon def lii pour ñu ne jàmbaar nga giir yii nga mais defoo woon ngir yàlla dëgguwoo woon ki doon jàngal Alxuraan lu ko yàlla wax yow yaa mën a fenn yow nga bëggoon ñu ne sa baat bee neex yaa mën tajwid masha allah barakallahu fiik keneen ki yàlla mu ne ko da ngaa bëggoon ñu ne yaa baax moo tax ndeke mbir yi yàlla ne rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura yàlla rek moo xam yàlla moo yor tamem tame xam ngeen tame tame lu ñu koy doyee dañ koy seggee di ko layee yàlla yor tame yow da ngaa jëf rek indi teg yàlla yor tamem di segg sa jëf yëpp a ngi ci biir tame bi yàlla koy yëngal nag léegi li nga def pour moom mu jàll li nga deful pour moom yëpp yu ngand yëpp mu ne la sawaay bokk ci jëlal loolu tax liggéey bii du liggéey lislaam du farfarloo ma lañ ciy bokkee du màcc jëm ci mbooloo lañ ciy bokkee du ci kuréel sàngam wala ay samay gaa wala samay copain déedéet yow kenn la sa jëf la yowmal xiyaam yàlla bu ñuy jugé du jël mbooloo mi jugé ñu kan la ñuy jugé yow anta wahdak amaama rabbak yow kese sa borom sa kanamu borom yow loolu tax dafa laaj nga sellal ko dafa laaj yow nga dëggu soo dëggoo ci sa liggéey lépp liggéey boo liggéey di nga ko sellal soo sellalee di nga am yéene bu baax boo amee yéene bu baax ñëpp say mbokk la ñuy nekk te doo liggéey ci ci ci benn ruq bàyyi beneen ruq ndax da ngay gëm ne liggéey bi fan la liggéey bi lépp la boo nekkee ci kër gi da ngay liggéey boo nekkee école da ngay liggéey boo nekkee ci mbedd mi da ngay liggéey boo nekkee ci biir oto da ngay liggéey foo tukki ngay liggéey koy liggéeyal yàlla te mooy borom lépp moom moom lépp moom ngay liggéeyal ndax benn place rek la nekk yàlla lii sa rek la nekk nekkul koñ ba ah kuy tontu tontu bi mooy déedéet yàllaa ngi lépp moom moom lépp jalla jalaaluhu sunu borom mbokk yi kon sunu borom subhanahu wa taala tagg na bàkk na sunu yonente alayhi salaatu wasalaam wallazi jaa bi sidq ki nga xam ne moo indi dëgg wa saddaqa bi en même temps mu dëggal dëgg gi yàlla nee na ki def dëgg dëggal dëgg googu ulaayika humul muttaquun ñii ñoo ragal yàlla ndax yenn saa yi nit défendre idée yu mu gëmul défendre ko de mu jaral ko mu xeex ci te gëmu ci gëmu ko loolu bis na ngeen gis ko ci politiciens yi wax loo xam ne gëmuñu ko benn waaye mës na wax ne man dama allergie Ablaye Wade su ma koy xool di wàccu Ablaye Wade Ablaye Wade woo def ko maire woo ko def ko maire gars yi ne ko waaw monsieur le maire yow mu ne allergie feebar la dañ koy faju faju naa ko tout court xoolal lu mu gaawee rapidement mu changé feebar allergie feebar la ah ca feebar dañ koy faj faju naa wér na subhanallah est-ce que jullit moom day mel noonu non non non non non jullit même bu ñu tegoon paaka sabaat yow da nga war a dëggu rek man la man la du man du man waaw jeex na ndeysaan mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala ci yeneen wàccuwaay ibnul qayim al imam ibnul qayim bi mu ñuy firil aaya bi mu ne fala yakfi sidquka sa dëggu rek du doy waaye bal laa budda min sidqika wa tasdiqika li sadiqin man dama dëggu li ma wax ni dëgg la waaye su ma gisee keneen dëggu indi dëgg na lu ma damay bañ est-ce que dëgg la ku dëggu mooy dëggal keneen su fekkee yow sa dëgg rek ngay défendre doo défendre keneen wala sa dëgg rek nga gëm wala yow rek yow yaa bëgg a dëggu mais doo dëggal keneen ku wax dëgg ba tey des na kon sa dëggu rek du doy mu ne fa kasira min annaas ñu bëri ci nit ñi yasduq dañuy dëggu walakin yamnauhu min at-tasdiq kibru aw xasad aw xeyru zalik da ngay gis ku dëgg waa ji dëgg ku dëggu la fépp fu ñu gis ñu baax ñi dañ koy gis waaye lan mooy problème am dafa am ñaari feebar yu ko dugg mooy rëy ak soxor mooy tax du dëggal keneen yenn saa yi ngay gis koo xam ne xam na ne lii lu baax la waaye daf koy rëy iñaan ak soxor pour mu ne lii dafa baax te suñ borom gis nga pour mu won ñu foofu sax foofu mu won ñu ne nañ def attention mu ne laa yajrimannakum sanaanu qawmin ala alla taadilu bañ ay nit bu mu tax buñ defee lu baax nga ni lu baax la xam nga jigéen buy sëy souvent ci kër sëy fa 30 ans 30 ans la fa sëy bis mu nekk mu ngi xëy di añ di reer di ndékki benn jour mu am ak waa ji problème amaana waa ji dóor na ko wala waa ji dóoru ko wala amaana waa ji xas na ko wala waa ji xasu ko ñu woo leen toog di di arrangé xam nga lu muy wax billaahi kii musuma gis ci moom lu baax ba ma fi ñëwee ba léegi damay souffrir est-ce que est-ce que bu mu fi ñëwee ba léegi mu ngi souffrir est-ce que amul benn bis bu ko waa ji defalul lu baax waaye xoolal tey loolu yëpp gas na ko dugal ci kàmb wane leneen lu amut loolu nit da koy moytandiku bañ ay nit bu mu tax ñu bañ a maandu léeg-léeg moo wax ko booy yi xale yi ma ne leen nañ même tarixa yi nañu moytandiku même sëriñ su mag si nañu moytandiku ci seen mbir nekkoo fi woon ak ñoom xamoo luñ fi wax xamoo luñ fi def léeg-léeg sax ñu indi benn bind ni ñoo ko bind defal attention wóoru la parce que yonent bi sax indi lañ ko ay hadis yu mu waxul wala hadisu daif lu ko waral ak mawdu yi ku ko moom hadisu mawdu lan lañ ci bind tuqaala rasul mais boo paree borom xam-xam mi ci am bari na la defal attention de ah lii mawdu la de li bokk ci hatta yonent bi looloo tax ku nekk moom juge ko lim def yow yaa ñëw ne diw nee na ah man sama yoon nekk ci diw de yow yaa waxoo ji man yow laay waxal yow mi wax wax ji yow la yow la engagé keneen ki nga wax nag moom moo xam mbiri boppam la su fekkee moom la mooy mbiri boppam wala nga fexe nga indil ko dalil boo génnee ci wax boobu mu wax juróom-benneel wasafa allahu nafsahu bihi dëgg yàlla ci boppam moo njëkk a wax ne man yàlla dama dëggu qul sadaqa allah suratu al imran aya 95 qul sadaqa allah yow muhammad waxal ak ñoom ne leen même yàlla nii mu bëgg nu mel moom yàlla sax daf koo mel ba pare ndax dafa dëggu waaye wa qaala subhanahu wa man asdaqu min allahi xadisan kan moo gën a dëggu yàlla ay wax am na ah lan moo tax bu ñu waxee bu ñu waxee yow bu ñu la waxee aaya alquran da nga ne allahu akbar mbokk yi lii dëgg la lu tax parce que ki ko wax dafa dëggu moo tax waxam dëggu taxallaqu bi axlaaqi rahman léegi nag dañoo war a jël melokaanu yàlla yi ñu jikko wooku taxallaqu bi axlaaqi rahman mel leen melokaanu yàlla yi yàlla dafa yor ay melokaan soo bëggee baax melokaan yooyu doo ko fi bàyyi soo bëggee baax laa budd nga jël melokaan yi baat bii ñuy waxtaane tey muy asidku ci la bokk dégg nga léegi yàlla mu ne wax leen ne yàlla dafa dëggu waaye ana kan laaj leen ana kan moo gën a dëggu yàlla ci ay wax wa man asdaqu min allahi xadisa bal wa qad qala taala qadama sidqin suratu yunus wa qala lisaanu sidq mariam 50 maqad sidq qamar 55 qala taala falaw sadaqu llah la kaana xayran lahum muhammad 21 mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala dañuy fekk mu ne am na wàccuwaay bu dëgg manazil asidiq muy qadama sidiq dañuy fekk mu ne lisaana sidiq làmmiñ bu dëgg dañuy fekk mu ne maqad sidiq toogukaay bu dëgg waaye mu ne même ñii walaw sadaqullah la kaane xayran lahum bu nu dëggaloon yàlla rek mu nekk jàmm ci ñoom sunu borom ne ci suratu yunus aya 2 mu ne wa basiri allazina amanu anna lahum maqa qadama sidqin inda rabbihim yunus ibnu abbas ne qadama sidq manzil sidq bima qaddamu min amalihim ñi ni yàlla ne nañ leen bégal am nañ ëllëg ay wàccuwaay yoo xam ne ñu dëgg rek ñoo fay nekk am nañ ay place yoo xamante ne ku leen romb ñu toog suñ ne yàlla ñii ñan la mu ne ñii ñoo ñu dëggu woon kon ku fa bëgg a dem lan ngay takk lan nga raat julli du la fa yóbbu koor du la fa yóbbu aji màkka du la fa yóbbu lan ma la fa yóbbu muy nga dëggu te soo dëggoo dëggal yee benn waay danaan naan sàngara pour ñu bàyyiloo ko sàngara bi ki ko doon bàyyiloo bi mu ko wooyee ba mu ñëw mu ne ko ñaanal ma waay sàngara mu ne ko déedéet du ma la ñaanal lool de mu ne ko waaw loo may ñaanal kon mu ne ko nga bàyyi fen mun nga bàyyi fen mu ne waaw wala loolu kay mun naa ko loolu rek waaw mun naa ko waa ji ne ko bismillah heure bu mu naan sàngara daal di jóg daal di jot waa ji daal di génne piliyaanam toog ci buntu kër gi te xam ne dina romb léegi mu génn taxaw gis waa ji daal di dugaat ñu ne ko ah soo demoo mu ne waaye saa waay toog fee de ñu ne waaw mu ne te su ma ko rombee dina ma laaj fu ma jëm te damay naani te su ma ko nee naani ma damay fen te waxoon naa ko bàyyi naa fen waa ji toog rek moom it tëx a dem ba guddi jot ba waa ji nelaw mu dugal séesam bët set mu daal di tegaat ba moom ñetti fan waa ji naanul wa affaire bi daal di denc ci bopp bi waa ji ba daal di daal di bàyyi fen noonu la jaar bàyyi naan te gis nga kon soo bàyyee fen lan la lay jural da nga dëggu soo ne fen nag gaa yi dañuy jàpp ne fen mooy lu ngand loolu ah xoolal imam bi doon jàngi hadis mu ñëw fekk kii jàngale hadis bi dina xar yor benn leket bu amul dara naan ko bar bar bar bar waa ji wane ginnaaw mu ne ko eh eh xaaral ngay jàng si waa ji mu ne may jàng si kay mu ne waa foo jëm nag. mu ne ah yow ngay fen xar yi yow su ma jàngee yow di nga ma fen kuy fen xar day fen nit yonent bi nee na boo ne sa doom demal nga ñëw ma may la comme ni maire di def dongaraami xukumaar boobu ni ni ah téeréer yi nga ñëw ajaaraama yonent bi nee na yow fenkat nga demal nga ñëw ma may la ñaar dërëm xale bi daw ñëwaat nga ne ko jërëjëf yonent bi nee na yow fenkat nga gis nga kon nu mu graawee kon ndeke même loolu foog doomu aadama bàyyi ko pour mu nekk ku dëgg suñu borom mbokk yi mu ngi wane yonent yi hatta yonent yi alayhim salaam qaala taala wa jaalna lahum lisaana sidqin aliya mariam 50 hatta yonent yi yàlla yónni wu leen nii rek déedéet yàlla daf leen yónni ba pare defal leen làmmiñ bu dëggu ibnu abbas nee na fi qawlihi taala wa jaalna lahum lisaana sidqin aliya assana alxasan tagg bu rafet la leen yàlla tagg c'est parce que dañoo dëgg ñoom yonent yi yàlla musta yónni yonent mu nekk fenkat bal yonent yëpp yàlla da leen tànn moo tax mu ne xiyaarun min xiyaar moo tax bokk na ci alaamaatu rusul mooy asidq bu ngeen demee ci sifaatu rusul ah ba ci téere bu ndaw boobu tudd durusul awal su lay wax sifaatu rusul da lay wax wëkk asidq dëggu ndax du yaadu yàlla tànn ab yonent yónni ko pare muy nëbbu soo déggee yenn saa yi ñuy weddi yenn xalifa yi li ñu wax ci seen téere yi ne man dama dañ ma nëbbal mbir mi dañ ma koo nëbbal jox ma ko gaa yi weddi leen usul waa usul weddi leen ne leen yàlla du yónni yonent muy nëbb bokkul ci melokaanu yonent muy nëbb li ko yàlla yónni kon dëgguwul te yonent dafa war a dëggu sunu borom subhanahu wa taala mu ne ci suratu qamar 54 55 mu ne innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqaad sidq ëllëg ñi ragal yàlla yàlla ne naa leen dugal ci aljanna joo xam ne place ya fa nekk place yu ñu dëggu la ay fi majlisi xaq laa laxun fiihi wala taasim wa huwa aljanna dinaa leen dugal ci place yoo xam ne place yu dëggu la caaxaan amu fa foox amu fa bàkkar amu fa même dégg ngeen sax ci alquran yonent bi bi muy ñaan dafa ne waqul rabbi adxilni madxala sidq yàlla yal na mu dugal ci place suñu dëggu ñi wa axrijni maxraja sidq yàlla yal na ma génne ci place boo xamante ne place su dëggu la wa axrijni adxilni wa axrijni kuñ dugal ajuna place bu lan la place lan la dëgg kuñ génne safara place lan la dëgg kon jullit mbokk yi dafa war a dëgg jullit melokaanam yépp su bëggee mu baax benn dong mooy pee su boo baaxee lépp dem loolu ñu naan train bu bopp bi baaxee vago yëpp dina leen diri waaye bu vago première bopp bi paanee ndax yeneen vago yi dina ñëw kon ndeke melokaanu jullit bi njëkk ci moom pour mu baax mooy na dëggu ci comportement am ci ay waxam ci ay jëfam ay démarche am ay def ay jëflanteem léppam bu mu bàyyi dara waaye bu fekkente ne am na ci yu sew sewaan rek li muy tekki mooy dafa am ay manqué manqué dafa am ay tolof tolof mbokk jullit yi ci suratul isra boobu aaya 80 mu ne ay ijaal madaxili wa maxaariji kullaha fi taatik wa mardatik wa dalika li tadammanuha al ixlaas wa murafaqatuha al amr wa muwafaqatuha al amr mbokk yi ci aaya bi ñu doon wax léegi-léegi yàlla dugal ma ci palaasu dëgg nga génnee ma ci palaasu dëgg mu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga dugal ma ci palaasu dëgg yi génne ma ci palaasu dëgg yi mu ne place yëpp nga defal ma ko muy topp yàlla kulluha fi taatillah même bu may dugg ci palaasu dëgg na ma fa dëgg yóbbu su may génn ci place bii na ma fa dëgg génnee lépp yow yàlla yàlla nga ko defal mu nekk fi taa ci topp la ma bañ a toppantu mu nekk topp dëgg mu nekk aydan ala mardatika yow yàlla ci sa kontante lay nekk loolu nag boo bëggee mu nekk ñaar yooyu mu ne fokk ixlaas sellal ak nga fexe mbir mi mu dëppoog li yàlla wax loolu rek moom moo la koy may al imaam ibnul qayim mu ne fa haadihi xamsa asiya lii juróomi mbir la juróomi mbir la yu ab jullit war a def ci boppam madxala sidq maxraja sidq lisaana sidq qadama sidq maqad sidq kenn ku nekk da nga war a jëf pour juróomi nga am ko madxala sidq dugguwaay bu dëgg maxraja sidq génnwaay bu dëgg lisaana sidq làmmiñ bu dëgg qadama sidq tànk yu dëgg wala wàccuwaay ak maqada sidq tooguwaay bu dëgg mu ne wa xaqiqatu sidq fi hadihi al asiya huwa al xaqu sabit ci juróomi mbir yi ñu wax dëgg-dëgg booy xool philosophie bi ci nekk mooy lan mooy alxaqu saabit mooy dëgg gu sax nit sax ci dëgg mooy tax mu dëggu nit warul soppeeku dafa am benn borom xam-xam mu ne gor du soppeeku gor du soppeeku gor du soppeeku benn couleur rek ngay yor benn melokaan mënoo ñuul weex xonq jaune vert mënul nekk su waaye da ngay nekk naafiq kon fexeel ba nga nekk alxaqu saabit dëgg gu sax al muttasil billah boo xam ne dafa jokkoog yàlla dafa jokkoo al muusil ila allah waaye bu lay yeggloo ci yàlla aussi dëgg goo xam ne daf lay yeggoo ci yàlla waaye daf lay kole nga taqoog yàlla tabaraka wa taala wa huwa ma kaana bihi wa lahu min al aqwali wal amal mooy li ngay jëf ci say wax ak say jëf moo la yóbbu foofu luy tax nga dëgg mooy say wax lan moo tax nga wax ba pare ñu ne diw ku dëggu la man xam naa ko su fekkee moo wax li dëgg la keroog pour ñu xam Aboubacar Saddiq ku dëggu la bi waa Màkka déggee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam rañaan na al isra wal mi'raj jóge na ci suuf dem kaw asmaan bal sax waxul rañaan na lan la wax jóge na Màkka dem baytul maqdis yéeféer yi bi ñu woowee yonent bi mu ne ñu ne ko loo def yonent bi ne man jóge naa fi ci guddi gi jaar naa Médine jóge Médine dem baytul maqdis fii rek la de lii kese ñi ne xaaral yow yow na xaaral nag tey moom di nga ñu dem wooy Aboubacar nga waa kaay nag tey moom sa waa ji du tàmm nga ne lu mu wax rek nga ni dëgg la waa kaay nag tey kaay déglu lu mu wax de ñu ñëw ñu ne yonent wax répété li nga wax yonent ne démb ci guddi jógee naa fi jaar Médine dem baytul maqdis ñibbi siwaat ci guddi gi te nit ñi yeewuñ yëféeri ne waaw Aboubacar tey nag tey moom mu looy wax mu ne wallahi su waxee dem na fu ko ëpp dëgg la loolu mooy ni maraaj bi maanaa ñoom al isra rek lañu yem moom mu dugalaale ci miraaj isra mooy jóge Makka dem baytul maqdis loolu mooy isra miraaj mooy mu dem kaw asamaan moom nag bañ ko waxee lan lañ ko indil isra kese mooy jóge na Màkka dem dem baytul maqdis waaye biñ laajee Aboubacar pour yaakaaroon ne day wedd mu ne giñ naa ci yàlla su waxee dem na fu ëpp foofu dëgg la parce que kii du waxantu keroog lañ ko tuddee as-siddiq xoolal melokaan boobu nit ku dëgg bañ ne kii ku dëgg la ba ñun ñëpp fi mu nekk nii kuy waxtaan ak yow ne as-siddiq kan nga jëm buñ la joxoon benn question rek ne boo xamee kan mooy siddiq rek ñu jox la fartaawul looy wax ay saa tey mu dee parce que ñëpp xam nañ melokaan boobu ci àdduna ba àllaaxira ba fii àdduna di jeex kan moom moom loolu Aboubacar kon loolu ni mu neexee ndax dafa dëggu woon rek ci jamono yonent di jeex na wala ba ñun fii ñu toog ilaa an yarisa allahu al arda wa man alayha as-siddiq dootu fi jógeti mbokk yi kon loolu moo tax dëggu am importance waaye gis nga saxaaba yi noonu la ñu rawantee ci melokaan yi ñii ñu xàmme leen ci dëgg ñii ñu xàmme leen ci kersa Ousmane ibnu Affan ñii ñu xàmme leen ci am xam-xam ñii ñu xàmme leen ci kenn ku nekk ñu mën a jël benn jikko jox la ko ñu ne yow lii mooy sa xàmmekaay bal sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yenn saa yi moo lay tuddee loolu mbokk yi ci tënk bu gaaw comme waxtu lañ ñu mayoon sunu borom subhanahu wa taala soññuñu ñun ñi nga xam ne ñooy góorgóorlu ci yoon wii pour ñu dëggu pour ñu nekk ñoo xam ne seen biir ak seen biti moo yem seen biir ak seen biti li ngay seen ci biti loolu moo nekk ci biir ñu bañ a nekk ñoo xamante ne suñuy mbir day am contradiction borom xam-xam yi nee nañ naafiq boo ko ne jàkk kanamu Aboubacar Saddiq la lay jox waaye xol bi xolu Abu Jahlin la naafiq boo ko ne jàkk sifaat melokaan Aboubacar Saddiq ngay gis waaye bu ngeen wanee ginnaaw yauddu aleykum al anamil caatata ñu xaw ma la ñuy def ba ñu dee rek ba jóge gis nga loolu moo lay wan ne li ci biir loolu la génnewul ci biti sunu borom subhanahu wa taala mbokk yi soññuñu santunu pour nu dëgg ñu nekk ñoo xamante ne seen lépp melokaan yi jëf yi surtout liggéey bi di liggéey lislaam mun la ko joxee nga war a nekku dëgg léeg-léeg ñu toog comme ni ñu toogee di élire ay poste diw yow yaay def nangam diw yow yaay def nangam diw yow yaay def nangam diw yow yaay def nangam ñëpp nangu kenn ku nekk ci ñun na fexe ba lim jël mbokk yi mu dëggu ci même bu doon yow kenn même bu doon kenn rek ñu jël ko fee ne ko bu gaay di julli yow yaay yow yaay defar dàll yi yow dàll yi lañ la jox mbokk yi ndax sa ñàkk a teew defar dàll yi dina tax nit ñi duñ julli dina tax julli gi yàqu ah xam nga boo ñëwul du wàññi dara mais fexeel ba nga dëggu man maa ko waxoon maa ko wax man maa koy defari xam nga nit ñëw sumi daalam teg ko yomb na waaye yow lañ waxoon ne yow yaay ranger daal li kon fexeel loolu nga dëggu ji loolu la yow loolu lañ la joxoon kii lañ ko joxoon moom mooy garder kopp yi kii lañ ko joxoon mooy maye ndox kii lañ ko joxoon mooy nangam kenn ku nekk ci jum ci dëgg yu ndaw ndawaan yi ngay essayer di dem loolu moo la yóbbu ci yu mag yi ministre yi ngeen di gis wala nangam yi ngeen di gis ci ay association lañ départoon ba tey xoolal fu ñuy teere kon sa ñàkk dëggu ci ndaw yi bis boo demee ci yu mag nu muy def nooy def foofu ngay échec waaye li gën a garaaw mooy ku dëgguwul mënoo gérer kër boo amee jabar du dem boo amee jëkkër du dem xam nga mënoo sëy di tricher sëy di tricher mënul nekk mënoo am jabar di tricher ak moom guddeeg bëccëg looloo tax sëy yi ngeen di gis fii tricher deux mois waa ji commencement mu ñëw di doxaan si saa ñëw di dóor ay costume ah yor ay sac diplomate fekk fu muy liggéeyee ñaar yëkkati kenn dugg ah waaw day raxas oto oto bu ñu ko jox ne ko raxas rek mu daw gis xale bi gis ko mu daw gaare ko maye fa 1000 francs dawaat ñëw bu bis rek waa waa ji rom ndaw si romb ko ah mu daw di nëbët xoolal yooyu ngay gis tey yu sa musiba yooyu ngay gis suñu dëkk bi bis bu nekk nga dégg rajo bi nangam moom bi mu ciy ñëw nangam nangam wala wala wala wala wala ndaw si bi muy sëy si nangam. parce que foogoon na waa ji moom it fekk yow moo tax ñàkk dëggu baaxul yal na yàlla def ñu dëggu kon incha allah loolu mooy première wàll bi ñaareel bi ñu bàyyi ko yéen lu ci jub ci yàlla la bàyyeekoo ñoo ngi koy jéggalu sunu borom subhanahu wa taala di ko ci sant asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.